ila bisimilah rahmaani rahim ñoo ngi leen di ziar mbokku taalibe yi ñun ñoo fi teewalaa Bichri TV di couvrir Magal Touba Athènes daayira Miftahu Nasri ñoo ngi taxaw ak suñ jëwriñ pik nekk jëwriñ ci waañ wi ñu nekk fii ci daral gi di fas yéene lottal xar yi jëm ci bernde yi jëwriñ pik ñoo ngi lay ziar. waaw ñu ngi sant bu baax ñu ngi julli ci Mohamed sant sëriñ Touba sant sëñ sum Serigne sëñ Bassirou waaw kontaan rek comme at yi ni ñu ko doon defee rek chaque année nii lañ koy defee ànd ak mbokku taalibe yi di liggéeyal Serigne rek waa ñoo ngi lay laaj Jëwriñ Peek ban yëg-yëg nga am ci màggal gi 2016 bi ban yëg-yëg nga ci am. waaw comme li ma ko waxoon ca daara ji rek 2016 moom mooy at moo xam ne atum tawféex la ñu ngi sant bu baax yokkute bu baax ndax barki démb la fi sëñ Xalil jógee sa gis nga nu mu defee dëkk bi ñun daal ñu ngi sant bu baax ànd ak mbokk talibi yi liggéey liggéey bi rafet na waaw ñu daal amuñu lu ñuy wax lu dul sant yàlla di ñaan yàlla di ko fekk ay dëwën yu bëri bëri di ko defee fii ànd ak mbokk talibi ci liggéey bu bi nii waaw jërëjëf jëwriñ pik ñoo ngi lay ziar jëwriñ Atumaan waaw di la delloo ziar. ñu lay laaj say impression ci màggalu 2016 bi ak ban yëg-yëg nga ci ak ban soññee ngay def ci mbokku taalibe yëpp. waaw lu jiitu loolu damay daal di nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. gannaaw bu nu jullee si yonent bi sant sunu borom subxanahu wa sant xaadim rasulullahi di sant sëñ Bassirou Mbacke suñu bunt si sëñ Touba Xaadim Rasuul sëñ Abdou Lahad Mbacke di suñu sëriñ di wax na rek ne màggal gi comme ni nga ko gisee rek nañ ko daan defee rek noonu lañ koy waajalee waaw ñu ngi nii tey gi ñëwoon fii nii fi ñuy maanaam lijjantee xar yi ñëw fii jënd ko daal di ko defar rey ko fees ko daggee ko defar ko ba mu jekk ñu yóbbu ko fële fas yéene màggal comme ni ñu ko fas yéene daan defee at bu jot di ñaan suñu borom nit màggal gi yàlla na dàq màggal yi weesu yëpp te daanaka mel na ne sax dàq na màggal yi fu weesu wa dàq sëñ waa moom saa su ne rek ay mbiram day yokk te tey gi lii firnde na na ndax tey gi gis nañ tey lan lañ jëndoon si xat daaw lañ jënd si ren xare ko ëpp kon loolu loolu loolu lay lay wan ne na rek ne maa mbir mi day dox rek maa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am comme ni ko ñëpp xamee ah delloo sant rek di wax ne mbokk taaliba yaa ngi nii ñu ngi si liggéey bi fas yéene ko màggal comme ni ko borom bi bëggee ni mu ko santaane di borom bés bi di sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nga xamante dafa ne sama bés bi bu ñëwatee na ngeen ko def nit na ngeen ko def nit tabaski waaye maanaam lii firndeel na ko ndax gis ngeen gaa yaa ngi si xari di ko di ko rey waaw kon nag maanaam maanaam fas yéene ko defee daal na mu ko waxee rek maa santale ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di ñaan yàlla nu si dajeex ngërëmul Sëriñ tubaa ñu fekk ay at yu bëree bëree bëri kenn bañ a manqué si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ Abdou ñoo ngi jëwriñ Atoumane Niang ñoo ngi lay laaj say impression ci màggal gi loo xalaat ci màggal yi ñoo ngi en direct nag ci Bichri TV euh, mu nekk euh, Denver ñoo ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Ibrahima ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waa sant Seex Xadim maanaam màggal gi maanaam li muy yëg-yëg gi ma ci am sax maanaam lottu naa cooq barki Serigne Touba mbake maanaam doy war daal mais gëm naa daal li ma ci mën a wax moom luy gàttal moom mooy yàlla nañ ko fekkee at yu bari te màggal na li may wax taalibe yi moom mooy nuñ ko sëf ba mu diis bu ko kën yërëm na ci gars yi fas li ko may na di waxee pas-pas na ko ci gars yi sëf ba ko sëf rek sëñ bi yóbbu ko te rafet naa ci njort lii ma gis nii doy na jërëjëf jërëjëf. ku am Pastef ci daara ji jàngkat bu mag a mag a mag a mag ku am pas-pas ci xasida yi ñoo ngi lay ziar jëriñ du ñu jox ñu seen impression ci. màggalu 2016 bi ak ban yëg-yëg nga ci am ay yasaminillahu inda jeewali iblisa isna deytoho biya wali ay yasaminillahu inda jeewali iblisa isna deytoho biya wali waaw ñu ngi ziar mbokki taalibe yëpp tey xam ne li ñuy yëngu moom donte ci xasida yi la kon mënut a ñàkk ñu barkeelu ci ngir bés bi te xam ne bés bi attan na lépp bés bi attan na lépp ñoo ngi ziar mbokki taalibe yëpp tey wax ne lii ñu gis fii ci maanaam daral bi nga xam ne ci lañ nekk tey jii di fi lewetal ay jur ngir fàggoo ko bés bi comme sëñ bi berndeel la wax moo tax ñu ciy def suñ kéem kàttan ñëw di jàpp ci liggéey bi ndax suñu yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall daan na wax ne ku bëgg a dabe da bind ndab kon ndab yooyu ñun ci lañ jàpp di jéem a berndeel incha allah mbokki taalibe yëpp ñu jéem xool maanaam nu mu gën a ci ñu mu gën a yelle ak ñi ko sëñ bi bëggee ñu defee noonu incha allah bañu ñu laajaat ñu leneen ñu xool luñ ci dolli barke borom Tuuba. waaw jëwriñ seen bul demagoon dama lay laaj benn question yow ban yëg-yëg nga am ci màggal gi fi mu ñun fi ñu nekk nii di ko màggal ci Touba Athènes. waaw Touba Athènes moom suñu borom moo def ñun ñu féete fi kon murit moom fépp fu mu nekk mooy tuubaa ci moom kon ñun fii mooy suñu Touba moo tax maanaam yëg-yëg bi ñu ci am moo di jéem koo defee ni ko waa Touba defee wala nu ko raw comme sëñ bi bernde la wootee nañ ko saxal ci bernde bi rek jaamu yàlla jàng xasaayit jàng alxuraan berndeel jaamu yàlla yi moo tax ñu ñëw fii lewatal fi ay jur ngir mën koo bégale jaamu yàlla yëpp incha allah. jërëjëf seen jërëjëf seen jërëjëf. naa liggéeyam depuis six mois mi ngi ci di wër ci kër yi di laaj mbokk euh, taalibe yi addee ji taalibe bu ne cent euros lañ ko sase ñëw nañ fii nag di ci dara gi di fàggu ay bernde pour yóbbu ko foofu jëriñ alaaji say impression ci. bis bi. waaw asalaamaaleykum mboolem mi ñu ngi saar ñëpp mboolem murid yi ñu ko seqal ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam ne nii moom la ñu yàlla booleel fii ci dëkk bi ñu joxoon ci wàll bi nga xam ne nag mooy wàllu dajale koppar yi wax dëgg yàlla murid yëpp gis nañ seen bopp ci bis bi. parce que xéewal yëpp wax dëgg yàlla macha allah lépp yemb na ba tey jii ñu ngi ñëw fii fàggu xéewal yi nga xam ne moom la war a yóbbu ci bis bi pour jagale ko ko maanaam daal suñu xol sedd na lool lool lool lool suñu njortit kawe na maanaam chaque jour rek lii suñu mbokk taalibe bi wax ku nekk rek Euh, sa pëseef ngay doxee te pëseef moom ci la lépp nekk nit ki nag loo fasul lu nekk moom doo ci mën a jariñu kon yàlla na suñu borom nangul suñu liggéey ci barke suñ Tuubaa te aar nu te yokku ñu te bañ ñoo booleeg daraay seytaan yi maanaam li ñuy liggéey suñu Tuubaa daal yàlla bu ñu gis suñu ci dara ci dara ci dara lépp daal na nekk rek tegu ci ak taalibe tegu ci biyar tegu ci ay teggin loolu la ñuy ñaan suñu borom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf ki boobu noonu football daa am match suba derby la am da ko faa bàyyi ndax euh, bisu bisu sëñ Tuubaa bi jëwriñ loo xalaat ci bis bi c'est impression ñi jaar mbokk taalibe bu baax di jaar euh, ñi fi teew ñëpp ak liggéey bi moom wax dëgg yàlla rafet na trop quoi moom euh, liñ ci mën a wax daal sorowul ndax liñ ci mën a wax mooy euh, maanaam dañoo xamul dañoo gisul lu gën a kawe cant mais bu gisoon lu gën a kawe cant maam ñu def ko ñun daal ñi ngi ñi sant ku tëdd li liñ ci mën a wax daal xam naa moom mooy ñi ngi sant daal. ñi ngi sant ñu xam nga wax dañ ko mën a waaye dañ. waaw léegi ñoo ngi lay laaj bañ sonni bañ soññee ngay def ci suñ mbokku taalibe yëpp yi nekk ci Athènes ak ñi nekk ci diaspora bi yëpp yëpp ci su bisu màggal gi. soññee bi de moom mooy maanaam. ak noo gisee teewaayu Bichri TV. no Bichri moom xam naa ne maanaam euh, tur bi rek moom moom dafa dafa dafa dafa wuy lépp daal loo xam ne moom Bichri loo xam ne dañ laa duppee Mafaatihul Bichri moom daanaka tur bi wuy na lépp moom mbokki taalibe yi nga xam ne maanaam ñoo ne ñoo ne ci dëkk bi te liggéey bi wax dëgg yàlla xaw leen lu ne jublu ñu ngi leen di ñaanal ci barke magal gi maam euh, ñu gën a jublu ci liggéey bi xam ni Sëñ tuwaa moom boo ko ñamee di nga xam ne bokkul ak dara di nga xam ne bokkul ak dara liggéey bi Sëñ Tuubaa moom amul moom niñ koy waxee rek daal ñi ñi ngi ciy sant bu baax di ci di ci di ci di tàllal loxo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci dëkk bi mbokk jullit yëpp bu ñu waxee mbokk taalibe yi sax day xaw a kii mais dañuy wax mbokk jullit yëpp maam ñu ñëw jàpp ci liggéey bi xam ne magal gi comme ginnaaw benn yoon la ci at mi nañ ci profité ni ci profité waaw ñi sant bu baax ñi sant bu baax. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi delloo ziar wér sëñ Ibrahima. yan impression nga am ci màggal gi ak teewaayu Bichri TV noo ko gisee nga xam day ñëw jëmmal bis bi def suñ màggal gi en direct ci Bichri TV. waaw ku gis lii moom xel wala rafet parce que ku ne xam ne mbir sëñ Touba am tànk ginnaaw ku xool fañ commencé ba fiñ toll nii di nga xam ne yëf yi am na tànk kanam. loo xam ne ginaar lañ ko commencé woon ba tey jii ñëw rey lu war tollu ci fanweeri xar dinga xam ne mbir mi am na tànki kanam te maanaam nii rek la mbiri Sëñ Tuubaa moom dara du ci dellu ginnaaw lépp kanam la jëm ku xool lii rek xel wala rafet te lu waaye am yaakaar na ko fas ci bés bi bés bi moom lu ci waaye fas suñu borom dana ko do maanaam si kàttanu yàlla suñu borom dana ko dogal. jërëjëf waaw